waaw ça c'est le, le le vrai problème aujourd'hui li nga xamante ne moo ñu dese on a beaucoup de joueurs qui émergent on a euh, nos nos sélections respectives U17 euh, euh, sélection A yëpp aujourd'hui on est on excelle vraiment on est on, on a on a le titre en u on a le titre en CHAN on a le titre en A mais suñu club yi aujourd'hui moo des sur la la représentativité si au niveau de l'Afrique ba tey euh, su ma xoolee yeneen euh, équipes yi euh, comme ay Wydad comme ay Al Ahli ak Mamelodi Sundowns vraiment dama naan mais pourquoi pas avec les joueurs qu'on a parce que tey dañu gagné CHAN mhm. ça veut dire que on a des joueurs locaux qui sont performants mais pourquoi pas à travers ces joueurs locaux locaux locaux là pour lan ñun du ñu am club yi nga xamante ni dañuy sore ci affaire donc voilà la question que le foot local doit se poser les organisa les organisateurs ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk football bi tey Sénégalais dafa des donc tey on dit football professionnel ligue professionnel mais ligue professionnelle bi boo xoolee tey aujourd'hui deuxième journée bi ñoo am ces genre de faille ñii dañ leen forfait ñii mm-hmm. bëgguñu jouer fii ñu mm-hmm. donc c'est ça devient plus professionnel mm-hmm. donc il faut que gars yi ñu ñu toog ñu waxtaan ñu xam ne am nañ ay objectifs yoo xamante ne en moyen court terme par rapport a nos clubs yi nga xam ne ñu war a représenter au niveau de l'Afrique loolu moo ñu dese tey pour tout ñu ne Sénégal devient un grand nu ñu koy waxati un grand pays de football parce que tey à tous les niveau on peut pas ñu ñëw au niveau de des clubs on peine encore. c'est désert depuis jaraaf ba woon. depuis GIA ba woon. c'est le désert 97 c'est le désert. Mm donc ça ne reflète pas aujourd'hui la position du Sénégal qui est aujourd'hui numéro un en Afrique depuis longtemps depuis longtemps on est numéro un en Afrique yàgg nañ ci de. avant record boobu dafa dafa dafa dafa dafa doy waar mais tey aujourd'hui il faut gars yi toog ñu waxtaan. ñu xool lu ñuy développer football footballu football local bi parce que Omar Pène doy na ko nee na football ci réew bu club yi baax yi équipe nationale ba dëgg donc tey aujourd'hui suñu équipe nationale yëpp dëgër na mais suñu foot local bi les clubs il faut ñu xool nan la ñu leen di jàppale subventionné leen yenn kit à sax yeneen joueurs yi nga xamante ni ñu ngi en Côte d'Ivoire ñu ngi au Ghana ñu ngi au Nigéria di ñëw di football fii ñu leen di fay lu doy muy yéegal niveau bi parce que yeneen équipe yi noonu la ñuy def marocain yi tey aujourd'hui booy euh, booy sénégalais bu moo fa nekk di dugal mhm. boo demee tamit ci euh, euh, sundown tey aujourd'hui ils ont des joueurs nigérians ils ont des joueurs ivoiriens ils ont plein de joueurs yoo xam ne ñu ngi ci yeneen sélection yi donc loolu day yokk football il faut que xaalis bi dugg au niveau des clubs mhm. sponsors yi dugg au niveau de ce championnat ñu yéegal football bi ñu commencé ko tuddee football professionnel mais au ligue professionnelle mais aujourd'hui on moi je ne ressens pas cette ligue vraiment am na lu des loo xamante ni il faut gars yi waxtaanee ko ñu bañ ñu. ñu éviter voilà parce que euh, un joueur professionnel. c'est pas normal.